ndax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gaston Mbengue le Don King ma fas yéene taxawal ab super class bi fas yéene yëngal réew mi Gaston Mbengue ku njortoon ne bàyyi na làmb dangaa yorul sunu làmb wala nga gëstu làmb li ci xew ci jamono ci promoteur bi fi indi woon class ak hors class moo dellu siwaat ci super class moom Gaston Mbengue le Don lu mu diggee bor la balaa am jàmm da koo fay super class bi am na ci combat bu ko ci soxal combat bu ko ci ñor te mu nga ca ko dox diggante Sa Thiès ak xam ne Gaston Mbengue bëgg na ko mu nga ca ba ko le volcan de Doubalé ségee moom Sa na noppi bu ci mel mel Bordeaux lu koy neex lay doon proposition boobee du ci deltu ginnaaw bu avance bi ñëwee tey mu jël ba mu yëgee mbir ma moom Sa dafa xam le ne boobee ay avantage la ci moom Gris Bordeaux athlète la champion la opportunité la ci man ci kaw Gris Bordeaux nangu bu nangoo ba jël bi le dara du ko dàq dana nu suqali lamb ji bégal amateur yi waxuma la wàllu pireeg wàllu négociation waaye Gaston bu yëkkatee téléphone am rek damay nangu ñaareelu gaston ci superclave boobee mën nañ caa jàpp diggante tafaatin ak rëg-rëg bile combat ba ñu ko déggee ñoom encadrement tafaatin dañoo bañ ba tëdd ci ñag ba lànk bay wut ku leen lànk lànk ba fësal ko mooy mbay ñi ngi tafaatin bañ bay wut ko ko bañ la def la mu xamle mooy bile combat bu ñu ci feyoon 100 millions sax duñ ko bëree tafaatin ba rëg-rëg bëree wut ak moom xoolu ko tafaatin bëgg bëree moo ko fi bàyyi te buñ ko joxe ay moroomam tafaatin ak rëg-rëg dafa jàpp ne promoteur bu koy dox wala nga koy wax da bëggul tafaatin te moom sax dafa njort ne promoteur yi amul kenn ku ci bëgg tafaatin la koy firndeel mooy fi lañ ne ñukk ay adversaire am di wëri ñeneen bu nu delloo ci super kalaafu père Gaston boobee la sunu làmb xamle mooy dégg nañ ca Balla Gaye 2 Boy Niang 2 tafaatin dégg nañ ca Sa Thiès ba ci Gris waaye le journal ba xamle mooy est-ce boobee Gaston dana ca def xaalis ba ca war gannaaw na ko waaye fa la nekk mooy mbëri yépp ku ci nekk démarché woon nañ la ren ba fay la kase la la fay da koo xeeb bañ ba tëdd ca ñag ba ne doo ko bëree boolee mbëri yooyu ñu fi tudd seen bëgg-bëgg romb na 50 bu dee Balla Gaye 2 moom plus de 100 moom lay laal Boy Niang 2 moom mu nga ca loowu 80 ya bu dee Bombardier combat bu mujj mu ngi laal 80 bu dee Eumeu Sène combat bu mujj mu ngi laal plus bu dee Waa Fass Bordeaux bañ na fi kaseb 50

gannaaw bi feebar bi ñëwee imposé ñëpp saison blanche jort na li guy gi buy dellu siwaat ñii ñooy doon ay adversaire am Yékini Senior Garga wala Reug Reug waaye buñ fàtte ne moom guy gi ba léegi xelam a nga ci troisième tigre de Fass moom guy gi du ñàkk adversaire ndax combat mag ñooñu combat yu neex lay doon digganteem ak Yékini Senior wala digganteem ak Garga wala digganteem ak Reug Reug combat bu ci bëree dina mel ni njarneem ndax a